seytaane nga da ngay koy takk. wax ne yow seytaane nga du ko la faale. seytaane li ngeen <laughs> ah oustaz mees la amee moom tamit di xanaa boobu wax nga de waaw da nga koo génnee. Paul is watching. thank you waaye Paul fu mu Sabel Ba thank you for watching. waaye Paul nii naa la waaye Paul Paul fan la. thank you so much for following our amazing show. Please like our videos and share it if you can. Eh. waaw eh, di am mbégte kontaan ci yéen bu baax a baax buur géwél nee na rasta mënul nekk oustaz. <laughs> waaw la bu buggee nekk oustaz day ndalu. non am na am na oustaz rasta sax waaye kii kuy ma gis nii. ah kii ba wax ko bàyyi ko divi man gars yi daal seddale ndax man daal ñaar ñi dama ne kii laay teg Zeyda bi kii di ko dox ay question. waaye moom te mu ne Zeyda la. Ah, déglu ma wax aaya. déglu ma te firi. ay na dama bàyyi sama yoon ne waaye man doomu Serif la. allez doomu Serif Serif Black Queen Serif nga. doomu mbër jàngal bëri na la sama sa ñam. waaye. Haydara Kara laa jox ñu aaya te ñu ko. xoolal dinaa ñëw si loolu si kanam. ak a dëgër fit nga xam ne am na loo xamante ne xam nga islam wax <laughs> na ko mu ne ikra. man nag eh. maa jàng nag. nag ikra. lan la lan la mu ne ikra. ikra bismi ah, insaana min xalaq. Ah. tey. Eh, eh, waaye teg na seen baaram teg na seen baaram teg na seen baaram. man daal teg na seen baaram. koy jox darsu. xoolal waxtaanal ko ci yàlla waxtaanal ko ci yonent bi. xoolal suma baat bi du ma dem ci Seexu Tijaan. xoolal suma <laughs> baat bi dégg waaye ma dem ci Mawlana Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu taala man maa laa isil hadis boo xamante ne. Hmm. soo toogee nga déglu xam nga lu ma nekk di wax. Hmm. instead of man may jooy yow yaay jooy. di nga gis ak waaw léegi léegi léegi teg na seen baaraam teg na foofu seen baaraam. waaw tey ñoo indi ko ñu fi. dëgg la dëgg la àdduma ngeen di def yi ngeen di wax yëpp. àdduma àdduma la koy bàyyi waaw jube la la mbal be tentu la ñen ko tenke doro mbal jey la ñinga ñingal kan programme o jube ñameng sahel network tv albo albo wala jube kan doro ngadi morning show brought to you by you know Sahel the morning plus two two zero two eight six zero one five zero. That's the number to call or to send in your messages anywhere you are in the world. Definitely, we appreciate you know the effort that you are actually putting in place uh, to mm-hmm. actually support us. si sa black week uh, xam nga trade fair. Gambie ñu bari duñ dee awee sax. Mm-hmm. ndaxte baaxoon na tey jii ñu wax. ni GCCI. waaw waaw. xoolal. Mm-hmm. waroo baaxoon na dëkk dëkkaan yëpp ñu yëg leen ne trade fair bi am ñu mën a jógee seen dëkk ñoo am ci dara. waaw bi ko amoon na ñun jamono. duñ déggee trade fair dañoo dem seen ay yenn bagage yoo xam ne dafa yomb ñu jënd ko jaayaat ko. amoon na benn benn brique bu ñu doon wax benn shop bu ñu doon shop 19 loo fa laal 19 dalasi la. 19 <laughs> shop am na <laughs> people can remember that. ay waaye 19 shop neexoon na <laughs> dañ daa ñëw dajale bagage yu bëri boo laal 19 paquet paquet 19. la demati numéro una. numéro aha. numéro una. gis nga ne xam nga man maa bëri xam-xam. xam nga lan moo dee maye loolu. jànga eh, da ngeen di fay da ngeen di fay. déggoo ma de sëy SOB19 tëj na boo gisee. balaa ngaa naa li nga eh, boo gisee ma ne SOB19 SOB19 dafa tëj moo tax ma. waaw daf ma laaj fan laa xamaat moo tax ma wax. sànni tuuti ci sànq benn moo bu am solo boo xamante ne nii jàllal nga ko. Mhm. Euh, muy euh, TREPFIA. Mhm. Euh, yàgg na ci àddina. Mhm. waaw suñ maam ñi suñ mag ñi ba tey dañ koy def. ci beneen anam wala ci beneen tur la. mooy luuma mag ñi di ko wax luuma. luuma ñu koy def every week waaw. lu ma jaw waaye ba léegi mu ngi am lu ma mu ngi am. farata ña dañ ko dee def. farata nga coy bi soo bi. Fass alarba la. Mm-hmm. samedi. honestar waaw. Ndungu Kebe Ndungu la dimanche. mbir moo xamante ni Ndungu Kebe ak Kër Paate. Kër Paate talaata la ba tey dañ koy def. Mm-hmm. kenn ku ci nekk boo amee sa sa sa njaay. waaw yóbbu ko foofu nga dem foofu dem sa eh. muuma ba. Mm-hmm. mu nekk loo xamante ni. lu ma koy lu yàgg la. Mhm. te itamit luy dimbale suñu maam ñi nga. xamante ne ñoo nekk euh, ci gox yi gox gox yi nga xamante ne. ñoo nekk ci ruxu Sénégal xam nga lu xewoon. bu njëkk da ngaa yore suukar ma wala ma yor leneen ñuy exchange. boobu xaas amagul. sa guut si ngay indi. Mhm. crops si ngay indi yoo xamante ne very nice crops yoo xamante ne nit dañ daan béy bi am suuf si barkeel yàlla barkeel everything. moo tax ñu naan la bari na la barkeele ko gën. dëgg waaye foog naa xam benn tey xam nga loolu mu ngi am ah, soo demee si ah, ah, provinces yi. Mm. something like that is actually. déedéet loolu amatul de. non xanaa si sa kii loolu jeex na. loolu jeex na ca ak ca jag jag ba man. nitu du ma réew taax. man foog naa ne bëriwul waaye mu léegi man ci àll bi laay xoolal man effectivement ci àll bi xam nga. waaw rek. xam nga àll bi lu ca am. <laughs> nga bokk man ma bokk yow.